assalamualaikum day eh, taala wa barakaatuhu te spectateur yi eh, wa channel 24 ma ngi len di nuyu bu baax di leen ziare eh, Ngoundiane FM ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré euh di ñaan yalla bis bi ñu dugg yalla nako yalla yàlla defar ci jamm ñu dugg ci jamm génn ci jamm ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waa Ngoundiane FM seen micro ak wa channel 24 euh di len ziaré man la mbay kan coordinateur gëm sa bop bi nekk Canaba ki nekk sama ndijoor moy euh, responsable yewi askan wi El euh, taala gay di suma frère di suma xarit. euh ñoo taxaw ni pour war explication yu ñu ndaw rek. merci comme ni ko waxe yaay coordinateur dem sa bop mhm. fii ci mhm. euh tay ji mu nek election législative bi euh, nga xam mo ci rewum mhm. euh yow nga nek responsable tay fi nga xam ni fi nga nek jamono ji bu ñu doon wax rek. nga ak ak yeneen élection nga daan gis. Hmm. lan nga ñu mën wax jàngat. waaw comme euh, Thiénaba euh, dañ leen xamee ci yar ak tey ak dal hmm. euh, maanaam hmm, élection bu ne jaar na fi lu ne nit ñi dañ koy xalaat mais bu fekkee Thiénaba la moom yàlla day def dañuy dem ba ca cappaandaw ga ñëpp joxante loxo muy opposition bi muy muy muy pouvoir bi parce que ñun li ñu xam mooy ku ci nekk la ngay gérer gérer ko bu jeexee jeex na ñun foofu lañ ko kii te tey ji li ma ci gis tam mooy nam daa demee rek. na mu daa demee daal gis naa ni bii sax mooy gën a sedd que yi passé incha allah waaw parce que ñëpp xam nañ affaire bi ni muy doxee. Mhm. incha allah waaw. Euh, beneen bi ci des gis nañ ne boo xoolee ci wàllu climat bi. Mhm. xaw na dal. Mhm. ndaxte nit ñi boo xoolee benn benn ngay gis lan moo waral loolu nga yaakaar. waaw nawet bi ñu nekk la wala. non non non non gis nga vote yi. ci la nit ñi ëpp lu ñu voté. parce que seen yaakaar yëpp mi ngi ci assemblée nationale. nañ ci bàyyi xel mhm. nit ñi di ñi ñëw de dañoo dañoo pareegul rek mhm. te ci woote Thiénaba yow daf lay jox ni à partir de 16 heures 17 heures 18 heures mhm. foofu la nit ñi ñëwee parce que jigéen ñu bari pare wuñ pour ñëw dañuy togg añ ba añ ba pare doog a ñëw ci ci ci ci ci ci euh, bureau yi euh, góor ñi nga xamante ni bi ak euh, ñi nga xam dañoo demoon ci jumaa ji julli ba pare ñoom ñoo fiy jaar ñëw xaar 8 heures jot ñu dugg voté moo gis benn benn yi nga gis ak tey ji nga xamante ni bi ñu bari dañuy dem ci tool yi balaa ñoo booyle dañuy dem bay li ñu war a bay avant midi mën a ñëw nag pour mën a continuer seen seen seen seen soirée quoi. Mm-hmm. ginnaaw loolu lan wax euh, en tant boo xam ne ni mm-hmm. euh, na vote ñu ngi dal rek. Mm-hmm. ñu dal parce que Sénégal euh, benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ki soxla Sénégal du ko taal ki soxla Sénégal du sa du toj li ñu bëgg mooy que pouvoir xam ne opposition yi seen bokk lañ opposition yi xam ne pouvoir seen bokk lañ. lii dañ ko boole muy ñaata député cent vingt député mhm. ñuy muy seize yoo xam ne dañ koo soxla pour dagaan askan baatu askan wi pour taxawal leen ci gox yi loolu nag bu demee ba tojante bopp di ci am rayante di ci am yàlla taxu leen di def nañ bàyyi xel bu baax loolu nit ki la ngay xëccu bokkoo dugal ci askan wi pour njariñu askan wi yëpp bokk ko bu ci jamante paaka amee euh, dóorante fital am ci rayante di ci am ña bëgg dem ca siège yooyu yàlla taxu leen a jóg ma ni kon nañ bàyyi xel askan wi yi nga xam ne ñoom ñoo leen di sànnili seen i xob pour bu ëllëgee seen i jafe-jafeñ ak seen i xat-xat ñu mën leen cee taxawal tañ bàyyi dem assemblée di wax ba nit ñi yóbbu leen te lañ fa war a def duñ ko fa def nañuy bàyyi xel askan wi yi nga xam ne dañoo bàyyi lépp député yi mais député bu ñu jël ngay def ay faux député bu jël ngay jaay ay passeport diplomate mais c'est pas sérieux kon nañ bàyyi xel askan wi nga xamni ñom ñoo leen yobbu fofu non waaw demb dal bu ma sañon cianaba gi ñun exemplaire lañ ci Sénégal yépp musuñu voté yaakaar naa ba voter jot ñu ni Sénégal cianaba euh, bureau bu toj amna fa wala door nañ fa benn militant wala sànni nañ fay xeer ñun liñu xamé moy yar ak teggin en tant que euh, euh, responsable gëm sa bop ma ngi wa wa gëm sa bop yi nga xamni ñoo ñu wër yépp nañ dem voter ci jamm ñibi seen kër waaw waaw. voilà ñu ngi lay sant. waaw merci beaucoup.

Euh, wax naa ko sama gars nag xam naa ne enjeu bi moo xaw des parce que campagne bi nu nu war a déroulé ci yi dafa dafa dafa des maanaam jotal bi daal dafa dafa dafa aggul ci nu ñu bare bare bëri ñu bëri comme par rapport yële passé moo tax nga bee moom moo nekk nekk neuf candidat ñëpp nekk doomu dëkk bi kenn ku ne wut bokkul li nga xam te ne si maanaam ki ngay jàppale maanaam ma ci beneen gox daal waaw moo ndax damay lance appel nag ci état ak mboolem ñun suñu parti ñu nekk yëpp muy yeew yi gëm sa bopp muy ku ma doon

ant rek waaw ñaar ñëpp ñu ànd ak dar rek lool loolu lañ mës ne boo gisee ñi waxtaan ñëpp bokkuñu ku ñu defante rek nit ñi waaye ñoo bokk ndey bokk bàyyi kafre waxtaan kon loolu ñu xamante ni suñu biir donc alosam lu métti métti mun ñoo jaxase mënuñoo ñoo tàggale waaw xanaa di woote waat rek sonos bi sonos bépp nag commune Thiénaba ñu fas yéene waxtaanaat ànd bokk ndey bokk bàyyi euh, maanaam nekk wenn say daal bañ a séparé wu ndax ba lu lu rek séparation moo moo ñu ko teg te vraiment li wax rek commune Thiénaba façon nit ku fi bu ñu jàppalee suñu biir rek cër bu ne kenn ko mën nga ko am te doo xañ sa morom dara kon maa ngi woot appel baal appel boobu daal ñu mboolem finance bu a def waxtaan ci daal a lëloo a waxtaan daal benn assises yoo xam ne daal vraiment dañ ciy gindikoo wa rahmatullah ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu borom dëkk bi a sec, des ziar euh, chef de village du nuyu imam ratib du nuyu notable yi nga xamni ñu ngi ci dëkk bi yépp di ziar euh, toute la commune de Thiénaba chef de village man ma ngi tudd Mouhamed Diagne Bashir di coordinateur bokk gis-gis liggéey commune Thiénaba candidat investi sur la liste proportionnelle nationale merci beaucoup

kaddu bokk gis-gis liguey wan ko population bi euh, te fépp fuñu dem gis nañ engouement population bi gis nañ ni population bi paré nañ pour voter euh, massivement euh, ci élection législative bi bi ma ñëwee nag tey ci centre de vote ba 1 gis naa ni donc nit ñi teel nañoo yeewu ñëw voter ci donc daanaka à partir de 8 heures jàpp 9h nous avons voté à partir de 8h 9h Madame aussi Thiénaba euh, les gens continuent aussi de voter euh, Madame dem aussi euh, aussi que les gens aussi sont mobilisés pour voter massivement donc gisaguma ben incident bo xamné ne nañ ko signaler incident grave je n'ai pas encore vu ça merci voilà beneen bi ci des mooy wax nga ko def nga nemmeeku ci yenn bureau yooyu wala yenn centre yooyu euh, mais gis nañu tekk tekkaaral bi nga xam ni jamono ji am na est-ce que mën nañ jàpp ne ci période bi ñu toll muy nawet bi wala da nga yaakaar ne xëy na nit ñi dañuy xaar ba au dernier moment ñuy doog a ñëw waaw xam nga population Sénégal euh, ñu si ëpp dañuy bàyyi ba nga xam ni donc naaj na ñu soo commencé génn pour mun a dem voter ndax dañ naan euh, naa def li may def ba pare génn dem wala su ma teelee dem euh, mun naa fa fekk ay nit donc bàyyi ma bàyyi ba ba si kanam mu gën a libre ma dem donc yaakaar naa ni donc fii ak ci kanam dina gën a génn gars yi dinañ gën a génn ñëw voté si massif al euh, seen représentant au niveau de l'Assemblée nationale merci beaucoup. am solo muy tànn ndawum pencum réew mi nga xam mo lay téwal ci mm. assemblée nationale comme ni nga mm. waxé mm. wayé euh gis nañu ci yenn bureau yi aussi euh, représentant parti euh xawna néw ndax lu tollu ci juróom ñetti xop wala juroom ñent xop yo xam ni wala euh seni ndaw bo xolé ñaar nga cey gis lolu aussi waaw euh, lolu au niveau ñun au niveau de Bokk Gis Gis liggéey daanaka euh, lu melni ni Thiénaba 1 Thiénaba Gare Kër Maysa ak yeneen centre yi dañ fa jëloon ay nit yu bari yoo xam ni dañoo war a mën a nekk suñuy délégué dans les bureaux de vote liste bi complétoon na mais xam nga ndog-ndog moom daanaka day dab doomu aadama ba tax na am nañu ay délégué yoo xam ni ne mënuñoo ñëw parce que voyage dab na wala ñu am ay empêchement donc xam naa aussi loolu ñu dal waaw loolu xam naa ko peut-être c'est ça. Wa message bi may lancé jëmale ko ci askan wi moy askan wi nañu génn voter massivement participer massivement au vote euh, suñu ko defee dina tax euh, euh sen taxaway gëna a euh si ñi ñuy falé député yi au niveau de l'Assemblée nationale ndax tànneefu député lu am solo la euh, ci dëkk ndax député am na njëriñ boo xam ne njëriñam we eh, daanaka nit ñi xamuñ ko bu baax waaye njëriñ bi mooy lépp loo xam ni moo ngi dem ci nit ñi di dem ci population bi di jóge ci gouvernement député yi ñoo koy saytu loi boo xam ni gouvernement andi na ko député yi ñoo koy saytu voté ko donc loolu mooy njëriñu député donc ëpp naa toog seetaan